C'est à présent, maa ngi leen di nuyu suba di ñeenti fan ci weeru avril ci atum 2024 di juróom juróom benn fukk ak ñeenteelu at ñuy feete suñu indépendance ma di ndokkeel ñépp ñi Sénégal ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen jaajëfal ci ni nga xamante ne ñun ñëpp di ay sénégalais noonu la ñu fonkee lii di jàmm ak démocratie ñu xam ne ñun ñëpp coppite gi am ci kaw bopp réew mi di élection présidentielle yi ñu weesu doonte commencé na sax ci ay xat-xat niñ ko jeexalee rafet na taaru na ba seen àdduna yépp ñu ciy bàkk naw ñu ci te duñ ci jaajëfal kenn ku ne ci ñu nag war ko ndamoo waaye war ko téye boole googu ñu yàlla boole ba lu mu xat-xat buñ ci duggee ñu génn dañ ko ciy sant bu baax a baax rawatina ren gii nga xam ne dafa tombeeg suñu fête indépendance dafa tombeeg kooru chrétien yi jeex ba ñu fete Pâques kooru jullit yi di waaj a jeex ñu jubli ci korité ren gii xat-xat yi ñoo waral nu ñu daan defee organiser défilé bi dañ ko doxalee noonu waaye dañuy yem rekk ci def lu ñuy wax cérémonie de levée de couleur fii ci palais de la république waaye du tere ñu jàpp ne ndam la ci ñun ci gannaaw ba ay nit xeexee ba ñu moom suñu bopp ba am suñu indépendance di ko fete at gu muy ñu ñu xam ak ñu ñu xamul ñu leen di ndokkeel di leen jaajëfal ñuy jaajëfale tamit anciens combattants yi ak ñépp ñi nga xamante ne xeex nañu ngir Sénégal moom boppam Sénégal doon lu mu doon tey ma ciy ndokkeel ñi nga xamante ne yàlla tegoon na la fii ci bopp réew mi muy président Léopold Senghor di président Abdou Diouf di président ak di président Macky Sall mi fi mujj ndax kenn ku ne ci ñoom am na loo def ci li réew mi nekk tey muy lu def ba ñépp respecté ñu ci àdduna ci kaw loolu laa fas yéene tabax tabax tamit jëmale ci loo xam ne moom la Sénégal nam ma doon fi ñu toll nii diggante bépp sénégalais mbokki Sénégal fête nationale nag saa yu ñu ko waxee ci indépendance dañuy xalaat suñu force de défense et de sécurité ma di leen wax sama mbégte sama jàppale ak sama kóolute ci lépp loo xamante ne jox na leen jox nañu leen ko dénk leen ko ñu koy doxal te muy luy indi jàmm fii ci biir réew mi ci bitim réew ci Afrique wala feneen ci yeneen dëkk yi. di fàttali ko tamit suñuy jàmbaar yi nga xamante ne ci nu ñuy demee pour jàmm am ci fépp ñu fay xeex am na ci ñoom ñoo xamante ne daanu nañu ñu di leen ñaanal yàlla yërëm leen te di masow ñëpp ñi nga xamante ne am nañ ci ay gaañu gaañu di leen wax nag nguuru Sénégal. dina wéy di taxaw seen njaboot ci nu mu gore ren gi teemu fête bi des forces des armées au cœur de la cohésion nationale maanaam ñi nga xamante ne ñoo yore kaaraange réew mi lan mooy si seen solo ci liy ndoon liy ànd jàmm ci réew mi daf ñuy fàttali ci fa ñu jaar te yàggul dara que ku ne ci ñun war na xoolaat ci boppam xoolaat ci lépp li nga xamante ne ñoo ko bokk ci ni ñuy tabaxee Sénégal boo xam ne Sénégal gu neex a dund la ku wax nag armée wax nation maanaam askan muy wane arme képp ku kenn ku ne mën na caa dem xeet boo bokk ak loo mënti gëm ak noo meltu mel donte na nga doon sénégalais rek loolu du ñu fàttale nag yeneen sénégalais yi nekkul tamit ci armée ni ñooñu di demee bokkati ak di daje armée noonu la ñu yàlla boolee fii Sénégal te ñu war ko sàmm bu baax a baax a baax. ci man ni ma nekkee ki nekk ci kaw armée yi di chef suprême des armées doon koo xamante ne juboo gi ci biir réew mi ci sama loxo la ko yàlla teg benn dëkk muy Sénégal lay fàttalin moom lañu am te du ci ñun la commencé du ñun la jeexee kon ñun ñëpp am responsabilité wu sàmm Sénégal ci ni mu waree ngir mën ko joxe ci loxo yi mu gën a sedde suñ njaboot ci di ñëw li ji sama cër mooy tàllal la sama loxo ñëpp dajale ñëpp boole ñëpp tàppe xol yi te fexe tamit ba li nga xamante ne mooy jàmm ak dal gi war ci réew mi pour ñu dem liggéey ko réew mi mën a génn ci góote gu mu nekk wala boog ñu gën ko avancel dinaa ci am taxawaay gu war a war a war ndax Sénégal dafa war a doon benn benn bopp bu kenn dul xar ñaar benn bopp boo xamante ne dafa am jàmm ñu jàmmal ko ndax loolu sax mooy suñu bàkk muy benn askan benn jëmukaay ak benn gëm-gëm di wax ndaw sénégalais yi que gis naa leen gis naa seen jafe-jafe dégg naa seen metit waaye dinaa jël seen gént ak li ngeen xamante ne moom ngeen namm ci defaru ak defar seen bopp defar seen waajur jàppale leen jàppale seen bopp jàppale réew mi dinaa ci taxaw bu baax a baax ba lépp lu jub njàngale lépp lu jub formation lépp lu leen di jox liggéey dina doon loo xamante ni ci sama mandat bii dinaa ci am taxawaay gu mucc ayib loolu nag dinaa ko def muy fexe ndaw ñi am liggéey fexe ndaw ñi mën a dimbale seen bopp dimbale seen njaboot dimbale seen waajur waaye ñi ma ci mën a àndal mooy ñii nga xamante ne mooy li ñuy wax secteur privé te ñoom ñoo yore koow mi koom gi ci réew mi bu liggéey amee tamit ñoom ñoo koy joxe waaye day fekk nag mu lalu ci secteur privé boo xamante ne dafa am doole ndax réew mi def koy jàppale état jàppale ko sénégalais yi ay jàmbaar lañ waaye sonn nañ moo tax ci fan yii di ñëw lépp li nga xamante ne war naa ko jël ci ay mesures bokk ko waxtaan ko ñoo xamante ne ñoo nekk ci secteur économique bi muy secteur privé muy commerçant yi muy ñeneen ñi nga xamante ne seen loxo ngi ci dinaa ko def pour ñu mën a def loo xamante ne mooy wàññi euh, jafe-jafe yi nga xamante ne am nañ ko ci dund gi. waaye loolu yëpp tamit gannaaw jafe-jafe yi dañoo war a taxaw ci lii dalal réew mi gannaaw def nañu juróom benn fukki at ak ñeenteel di fete indépendance dafa jot tamit ñu taxaw xool ba xam fan lañ bëgg a jëmale Sénégal ak naka lañ ko fa bëgg a jëmale ndax Sénégal dafa way war di wéy di doon modèle ci Afrique ci gouvernance maanaam nu ñu téye réew mi ak ci ni nga xamante noonu la ñu respecté ak ak fu doomu aadama yu ñu ci yi fiy dund ba ca réforme institution yooyu maanaam naka la ñuy doolelee li ngan réew mi da ci am exemple bu buñ ca bëgg a joxe te yàgg ko wax tamit mooy man mii bés biñ ma fale ba def ma président de la république ma prêter serment ci la décidé ne cërub ndombal tànk secretaire général Pastef les patriotes bi ma te bi ma takkoon tekke naa ko bés ni ko tey pour doon président boo xam ne dafa tëddee njaaxaanaay ngir ñu jëmmale ci waxtaan yi nga xamante ne dafay dalal maanaam espace politique bi maanaam langue politique bi ndax yaakaar nañu ne te loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy waxtaan ak sénégalais yi lii di lëpp lu laale ci wote war nañ ko gën a ñongal war nañoo dem ci am loo xamante ne élection dootul dépendre ci ci ministère de l'intérieur direction générale des élections ndax jafe-jafe yi ci am ren gis nañu ko ñu bëgg samp nag lii di commission électorale national indépendante boo xamante ne day moom boppam war a waxtaane tamit li nga xamante ne mooy ni ñuy xoolee ba parti politique yi nga xamante ne bari nañ lool ñu gën leen a boole pour gën leen mën a wàññ te jàppale tamit parti politique yi nga xamante ne ñu ngi ci langue politique bi am taxawaay gi war di former di animer vie vie politique bi ñu mën leen a jàppale ci financement te mu doon financement boo xam ne tamit dañ koy seytu bëgg nañu ne tamit lii nga xamante ne mooy coowal fichier électoral fii ci Sénégal jeex ndax mënuñ ci élection yi ñuy dem rek ñu àndi coowal fichier électoral ba tax na bokk na ci li ñu bëgg a jëm mooy képp ko am pièce nationale d'identité dootoo gisati ci gannaaw ne mënuloo wote ndax boo amee pièce d'identité doon Sénégal di nga war a wote fas ne nañ tamit waxtaanee yoon waxtaanee yoon ngir yoonal loolu li ñu koy may mooy toog ak ñépp ñi nga xamante ne ñu ngi liggéey ci yoon muy avocat yi muy magistrat yi muy greffier yi muy ñeneen ñi nga xamante ne dañu leen wax ay auxiliaire de justice te seen liggéey jeexee ci yoon wala muy tàmbale ci yoon ñooñu jàpp nañu bu ñu waxtaanee ak ñoom waxtaan tamit ak citoyen sénégalais yi nga xamante ne bu yoon dalee seen kaw lay dal te ñoom ñooy soxla tamit dem ci yoon pour ñu sàmm seen ak ak seen yeleef dinañ am taxaw dinañ am yoon gu gën gi nga xamante ne am nañ ko ci fan yi kon yoon dina gën a jubbawaat ak askan mi nga xamante ne ci turam lañ koy joxe waaye lii dafa nekk pàcc rek ci li nga xamante ne rupture la bu ñu bëgg ko àndi te bi ci gën a mag yaakaar naa ci sénégalais di ko xaar ci ñun mooy naka la ñuy sellalee li nga xamante ne ñun ñoo ko moom te mu am ñu koy dëñ muy gouvernance vertueuse te ànd ak tamit loo yore nga am ci étique de responsabilité maanaam nga doxal ko ci maandute te tamit xam ne bés dina ñëw nga war a taxaw ci bi kanamu askan wax leen ne li ngeen ma dénkoon nii laa ko doxalee fii laa ci yem nii la mu doon lu ñëpp xam ndax lu ñëpp bokk ñëpp ko war a saytu ngir ñëpp jot ci. moo tax lii di guerre dinañ ko xeex xeex gu tara tara tar ci réew mi boole ci nag ñi nga xamante ne tamit. dañoo nekk ci réew mi di liggéey réew mi jàppale leen jox leen sécurité jox leen infrastructure jox leen sax ay avantages yenn saay waaye ñuy wëlbati ko nag lempo gu ñu war a fay pour réew mi continuer di màgg di defar ay infrastructure tabax lu ne ñu bañ ko fay ñooñ tamit dinañ ci taxaw taxawaay gi wër ak ñi nga xamante ne dañ koy jël di ko yóbbu bitim réew ci anam yoo xamante ne warut. bëgg nañu tamit dooleel ñi nga xamante ne fépp fu ñu fekk luy yàqu. te muy yàqal Sénégal dañ koy wax waaye ñu yàggalee na noot yàggalee na fitnaal te ba mënuñoo wax di xool li nga xamante ne ay nit rek lay jëriñ waaye luy lor Sénégal la muy ay lanceur d'alerte ñu gën leen a protéger ba fépp fu ñu fekk luy yàqu ñu mën ko wax te daru leen ci fekk bëgg na tamit ñii nga xamante ne dafa am ñu am ñu jël alalu réew mi mënuñu ko def seen tur di ko def ci seen tur ñeneen ay xarit wala ay mbokk wala ay am di jàmm yoo xamante ne pour bañ rek ñu laaj leen xaalis bi ngeen liggéeyee lii fan la jógee mu mu mujjee feeñal luubal muy ay prête-nom dinañ leen waxtaan bu ñu waxtaan ak ñoom pour ñu mën a feeñal seen bopp bu ñu feeñalee seen bopp duñu leen toppee dara non seulement duñu leen toppee dara waaye bu dee jël nañu alal loolu tax nañu jël alal delloowaat ko ci réew mi ñun dinañ am loo xamante ne dañ ko leen koy ciy jox pour gën leen encourager lii di rapport yi nga xamante ne tamit dañuy jël ay corps de contrôle samp leen ñu mel ni IGE mel ni Cour des comptes mel ni nag ñu dem defi ji ay rapport rapport yooyu war a dem ci procureur sénégalais yi nga xamante ne ñoo soxla lu leer ci nu ñu saytoo seen alal mënuñu ko gis loolu bu soobee yàlla dina jeex ci réew mi ndax fu rapport génnatee ci Cour des comptes génne ci nag askan wi dinañ xam rapport bu lu ci buñ ko dee yóbbu ci yoon nag dinañ ko yóbbu ci yoon bu dee am na ñu ci tuumal loolu yoonay wax ndax taqee nañ ci wala wuñ ci lii di tamit loo xamante ni yàlla wërsëgal ñu ñu ko muy ay ressources naturelles ba dolli ci dellooy ni sax mu am ci léegi ay pétrole ak gaz waaye amoon tamit laata loolu or amoon zircon amoon leneen ak leneen gouvernement bi dina ci bàyyi xel bu baax a baax saytu ko ba xam ndax niñ ko joxee jaadu na ba xam ndax ni biñ leen ko joxee liñ doon xaar ñoom pour ñu matal ko ndax matal nañu ko loolu tamit muy ay audit yoo xamante ne dañ koy def non pas pour fitnaal ay société non pas pour bunt xatal leen waaye pour xool ndax lii nga xamante ne moo ci waroon nekk intérêt Sénégal ndax Sénégal jot na ci ndax sénégalais yi jot nañu ci ñii na nga xamante ne ñooy ñu ñuy jëflante ci bitim réew te muy ñoo xamante ne yàgg nañoo ñëw Sénégal nañu xam ne wala bëgg nañoo ñëw Sénégal dañu xam ne Sénégal tey la gën a ubbeeku Sénégal tey la gën a wóor te Sénégal tey la gën a taxaw sax waxatuma la biir senegal waaye biir Afrique biir CEDEAO biir UMOA pour am pour dal am fa pour jàmm am fa ndax ku ne Sénégal nag wax Cheikh Anta Diop ku ne Sénégal wax Léopold Sédar Senghor mi nga xamante ne yàgg naa xar ci tànku tubéyam pour réewum Afrique booloo pour askanu Afrique booloo kon loolu dinañ ci taxaw gën cee taxaw xar ci suñu tànku tubéy ba luñ ci mën a matal rek ci nuñ ko waatee ñu matale ko noonu mbokki Sénégal dañoo war a xam ne gannaaw ba ñu moomee suñu bopp suñu problème ñun rek ko mën a régler kon kenn du ñëw duñu fajal loo xamante ne ñun mënuñ mën nañ ko fajal suñu bopp waaye bëgguñu koo fajal suñu bopp. lii nga xamante ne nag mënuñu koo defal suñu bopp ndax yàgg dépendre ci bitim réew war nañ ci taxaw taxawaay bu baax a baax ba lu ñuy soxla ñu bañ di ko jéggaani loolu moo tax lépp lu ñu war a def ci mbéy mi ci càmm gi ak ci napp gi. dinañ ko matal dinañ ko gën a dooleel pour Sénégal bañ a tey jéggaani lu bëri ci li nga xam te ku daf koy soxla pour lekk ko waaye administration publique tamit war nañoo gën a góorgóorlu gën a ñongal seen procédure gën a ñongal nu ñuy liggéeyee pour gën a am résultats yoo xam ne dafay dem jëm ci askan wi gën leen a noppal loolu moo tax sama gouvernement lépp luy xarala yu yees yi ñu koy woowee digitalisation dinañ ci def xaalis yu bare bare bare pour yenn yi sax bañ tee jar nit di déplacé wu di jóge fu sori pour dem amee ji ko ci administration waaye tamit pour yokk ci transparence boo xam ne kuy def da ngay xam ne li ngay def ñëpp a nga koy xam ñëpp a koy gis ba doo ci mën a def loo xam te ne day lor askan wi lii boo ko waxee tamit noonu lañ ko war a fas waxee ci lépp luy lekk daan naa wax sànq fokk ñu dolliwaat liggéey ci mbéy fokk ñu dolliwaat liggéey ci càmm fokk ñu dolliwaat liggéey ci napp pour bañ a tey jégaani dara waaye lii di subvention agricole yi muy doon xaalis goo xamante ne dañ koy jox war ko jox producteurs yi war ko jox béykat yi dinaa fexe ba muy egg ci béykat yi taxaw ci tem mu bañatee dem ci ñoo xamante ne duñu béy duñu produire waaye subvention yi ci seen loxo lay des askan du ko gis kon mbokki Sénégal saa yi ñu taxawee ci bëtu indépendance rek doon la doonte feet la ci ñun ñëpp waaye tamit taxawaay la pour ñu xool fa ñuy jaar ba Sénégal doon lu mu nekk tey ak nakal ban taxawaa la ñu war a am ba Sénégal ëllëg gën a màgg Sénégal gu ñu am tey loolu dafa ànd ak ñu bañ am lu ñuy ragal bañ am lu ñuy sikki sàkk bañ am lu suñuy xel di jiixi jaaxa jàppalante loxoog loxo tegante mbagg ak mbagg pour dox jëmale ci li nga xamante ne mooy yéene askan wi mooy li askan wi bëgg a doon li askan wi bëgg a gis Sénégal doon ñu mayante jàmm yéene wante jàmm tappe xool yi boole xel yi xalaat li ñuy xel li pour mu doon loo xamante ne mooy suqati Sénégal ba faw mbokki Sénégal jàmm la ñu woote dal la ñu woote kaaraange la ñu woote ndax ci jàmm ak dal ak kaaraange rek lay naataange di amee maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax bésub jàmm ci indépendance Sénégal ëllëg incha allah